jëwriñ ji gàllu lépp lu jëm ci wàllum assainissement ci biir réew bu Sénégal nag di Mansour Faye démb nekkoon ganuk dëkk bu sell bi di tuubaa amal ndoorteel li nga xam ne moo jëm ci projet d'assainissement bi nga xam ne moom moo jëm ci li ñuy wax eaux usées yi maanaam ndox yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ci biir kër yi ñu mën koo traité waaye itam ñu mën a fexe ba du indi benn gàllankoor boobu le projet nag ki nga xam ne moo di état bu Sénégal moom moo joxe li nga xam ne moo di financement bi lëkkaloo gu mu lëkkaloo ak banque ouest africaine de ñu koy wax BOAD. lii pàcc bu dëkk beneen financement bu ñu amaat bu soobee suñu borom dañuy fexe ba yokk financement yi yokk projet de telle sorte que Touba doo dugg ci quartier te amul finance amul assainissement eau usée parce que dëkku bi màgg la boo xam ni yaakaar nañ màggaayam nu muy màggee amul benn dëkk ci Sénégal bu koy màgg donc il faut ñu def ay investissement structurel yu nga xam ni. moom mooy accompagner maanaam màggaay jëkk bi ca boobu leen ndaje nag amoon na ay kilifa yu takkoo takk yoo xam ne daje woon nañu fa ku ca mel ne Serigne Bassirou Mbacké Porokhane mi nga xam ne moom moo fa teewaloon xalifa général des Mourides ak itam maire bu Touba bii di Abdou Lahad Ka ki nga xamante ni moom moo di Mansour Faye nag di fësal ne programme bi lu jëm ci juróom-ñaar fukki milliards war nañ ko cee def lu toll ci fukki dëkk yu mag ci réew bu Sénégal itam danañ ca bokk bokk na ca dëkk yooyu Touba projet bii nag projet bu am solo la parce que ñu ngi ko tuddee bi nga xam ne ci Sénégal ñoo koy bénéficier wu tout euh, montant financement bi globalement soixante dix milliards maanaam boo ko doon diviser di ko yóbbu par dëkk ma dëkk bu ci nekk sept milliards lay am waaye président moo ne nañu jagleel Touba dix milliards dix milliards nañ ko jagleel Touba bu def assainissement eaux usées mais lu ndaw la ci lu Touba soxla. projet bi nag fii ci Touba juróom-ñetti quartier daanañ ci bokk fu ca mel ne Touba Madiana Touba Guédé Guédé Bousso ak Daaru Xuddoos Grande Mosquée ak Touba Mosquée Mbacke Bari ak Kër Ñang ñooñu lee ñooy juróom-ñetti quartier yi nga xam ne nii fas yéene nañ ñu ne dugal ci boobule projet bu ñuy wax projet d' assainissement des eaux usées. ñun defi mooy fexe ba nga xam ne Sénégal le taux d' assainissement bu fi nekk ñu yokk ko ba nga xam ne au niveau de l' Afrique de l' en terme d' accès à l' assainissement président mi ngi ciy liggéey waaye soxla nañ ci ay ñaan ñaan yi gën ko mottali. ci ab xayma ak cib takki nag jàpp nañ ne projet bii nag bu jeexee lu toll ci juróom fukki junniy doomu aadama ak juróom-benn nag daañ ci jariñoo ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu assainissement boo xam ne nii mënees sa caa tegub loxo.